fédération bi foofu euh, xam nga les enseignants du supérieur ñoom tamit seen autonomie kenn du leen ko xañ ah ñoom chaque fois dañuy bëgg am seen autonomie lépp lu ñuy def du jógee ci kaw ñoom ñoo koy décider seen biir mais au moins ni euh, enseigne euh, ni ni ni éducation éducation nu ñu ko wax éducation nationale mm-hmm. def ba régler fédération mm-hmm. mais ñoom kenn du leen dicter kenn du leen nommer mais nañu gisante seen biir mm-hmm. xam nga moon boo nee lii duma ko nangu mais day fekk nga proposer dara à la place. Mhm. lii duma ko nangu par contre ñun déggoo nañu ba teg li nga xamante ni loolu moom la suñu xel mën a nangu mooy lii. Mhm. boo fa dindee lii teg fi lii. mais dooni du ma ko nangu rek toog croix euh, braqué quelque part. ñoom nañu gisee seen biir xool nan la ñu bëgg a former seen fédération. moo mhm. gën le statu quo ou bien. non vous avez raison parce que je pense que je vais même profiter pour lancer un appel à, au docteur Abdourahmane Diouf l'actuel ministre de l'enseignement supérieur je pense que l'initiative même devait venir de lui oui. plus que fekk na fi affaire bi euh, mu ngi taxaw damul dikkul mhm. il a pouvoir euh, de convoquer tous ces établissements mmh. ne leen léegi d'accord on vous nomme pas mmh. mais discutez et, et moi quelque chose et que mu fexe mu am une effectivité de mhm. l'existence même de cette fédération parce que loolu bu amul ku nekk toog di xaar sa morom. je pense que mën nañ fi toog ba euh, ba jusqu'à l'infini mais du mus a am fédération universitaire